asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokku jullit di tey jii ñoo ngi waat fii si Cheikh euh, Daouda soxnaam su baax soxna Faatu tey mu defal ko lii moo xam te ni surprise la ci moom mais ni mu ko ko defalee xam naa ne dina si kontaan ndax Faatu ñi mu woo mooy ay ay nitu yàlla ay boroom xam-xam ay kilifa waaye ay taggkatu sayyiduna Muhammad ay ñoo xamante ni Cheikhouna Tidiane Chérif la ñuy waxtaanee te xam na ni borom borom këram loolu dong la bëgg moo tax bi mu ko waxee anniversaire bi mu ànd ceeg moom waaye woo na mbokki dëkkandoo yi ak ay waajuram yu jigéen moom soxna Faatu ak ay rakkam yu jigéen rakkam yu góor ak ay xaritam soppeem yëpp woon na leen di leen tëjaale sama bisu anniversaire sama borom kër dama bëggoon ñu ànduloo santale ma ko yàlla kon borom këram boobu di Cheikh Daouda juuf moom la ñuy déglu ndax xam nañ ko. ci mu nekk nit ku baax nit ku mën a dimbali doomu aadama sang bi wax na ko léegi am na lu ñu ci xam ku mën a too ay nit tabaski bu jotee ay enveloppe ay lay def xool waa kër yonent bi ku si ne mun ma joxal bii diw bii diw bii diw korité bu ñëwee noonu la koy defee tam xarit bi bu ñëwee noonu la koy defee nee ne gaa yi jënd ginaar mu ne kuy tagg yonent yàlla Muhammad sa dara war wër tam manqué moom Cheikh Daouda mi noonu la koy defee kon Cheikh Daouda dañ lay ñaan nga nuyoo nga waxtaan ak mbooloo mi ak nga sant yàlla ndax li sant yàlla la ak sa soxna sooset ak soxna yi ay ay magam ak i rakkam yi nekk ci kër gi ah, moom soxna Faatu Xadi ñaari Xadi yi ñoom it yàlla yàlla defal leen jàmm ñoom ñëpp dañoo àndale jàppale jàppale seen rakk di soxna Faatu mi defandoo anniversaire bi kon Cheikh Daouda bismillah rabbi israh li sadri wasir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafaw qawli xamdan lillahi xaalihi lakwaani mumiddina bi tariqati tijaani salaatuhu ala saahibi alburhaani nabiyika almuxtaari daymaani abul abbas ahmad tijaani assalaamu aleykum wa rahmatullah ñoo ngi sant yàlla di ko sant ci turam yi yu màgg yi di julli ci yonentam bi nga xam ne moom sunu boroom moonu wax ne laxat kaana fi rasuuli uswatul xasana ñoo ngi julli ci moom te yàlla njëkk julli ci moom di sant bu baax ñi nga xamante ni bi ñoo fi ñëw di sumay nijaay li tax ma njëkke ci ñoom ndax eh, samay kilifa lañu te man duma duma xeeb samay kilifa beneen bi may sant Thierno Boli waruma ko sant sax ndax sama xarit la waaye ñu ngi koy sant ci ci bépp xaal di ko ci sant ci lu ci lu feeñ di ko ci sant ci lu nëbb sëñ ngañ ñu nit ñu ngi lay sant ndax yow xeebaloo xeebaloo ma sama dara te dañuy yëkkati ba sax ku xamul day yaakaar ne ñun tool nañ foofu te fekk ñu fenn ñu ngi lay sant bu baax a baax a may sant sama yaay farma eh, ndax sunu yaay la te du lu mu jur soxna Faatu moo tax moom sama yaay la sama yaayu bopp la ak rakkam bu baax bii mu àndal Euh, rakku faatu yi mu àndal waaye euh, may sant soxna yi euh, di leen di leen sant ñoom ñépp di leen di leen ñaanal yàlla yiw di leen ñaanal yàlla barke soxna faatu nag moom moom sànq rek maa ngi wax sëñ Jigo ne ko soxna Faatu dafa xamul dafay commencé loo xam ne yàlla mën naa def mu dem ba ëpp ko loxo eh, ma ne ko ndax ma di ko tooñ ma ne ko mu ngi woote waaye jinne yi di woote ma ne ko loolu moo ci gën a yéeme nag waaye eh, dun ko duñ ko sant dañ koy ñaanal ndax man amila saalihan fa li nafsihi man asa fa alayha ku uh, lu waay def rek boppam uh, boo boo boo defee lu rafet sunu borom bu lay fay da lay lu rafet wa man soo defee lu ñaaw sunu borom bu lay yàlla amul lu ñaaw yàlla daa yàlla gis nga yu baax yi yu bon yee ko ëpp te yàlla amu ko moo tax kuy def lu bon rek nga dagg sànni doo bari le ndax yu bon yi kat ñoo ëpp yu baax yi waaye nag ñu ngi leen di ñu ngi leen di ñu ngi koy wax ne ko yàlla defal ko yàlla defal leen yiw yàlla defal ko xéewal yàlla defal ko barke yàlla defal ko sutura kenn mënul kenn dara kenn mënul kenn dara lu waaye dafa bokkoon kon ñoom moom ñi ko tàmbali eh, lépp lum ci jublu moom balaa mu koy def sax yàlla xamoon na bés bi dana am ndax sëñ Jibo mu ngi may wax léegi léegi ne man de lii nii laa ko génte woon démb moom sëñ Jibo mi toog man ma ne ko ah, loolu de yéeme na waaye nag yàlla toll noonu yal yàlla defal ñu jàmm loolu daal mooy tàmbale wax di sëñ Ngagne Eh, yàlla defal leen sutura jërëjëf jërëjëf may nuyu soxna Ndey Ja ak eh, sama sama jigéen bi nga xam ne jabaru puy la nga xam ne gàmm gi ñëpp fa la ñuy dal këram waaw yaatu lool mën a yaatal yow moom yàlla defal jàmm jërëjëf jërëjëf jërëjëf kon ñi nga ànd ak ba tey waa seen info 8 TV ci kër Cheikh Daouda juuf yàlla dogal euh, soxnaam si di Adja faatu incha allahu rabbi taxawal li ànd koog mbagam ju baax jëlee di soxna xadijatu wax dëgg yàlla seen euh, àndin rafet lool nag ndax man kër gi duma fi gan yaakaar naa fi laa dëkk léeg ma ñëw cheikh bi nekk suuf ma yàgg fii ci kaw lool nag waaw euh, yàlla xam na ni dafa am benn kado bu ñu bëgg dugal rek xam naa ne Fatou xadijatu ñoom ñooy mujjee seede waaw benn kado boo xam ne moom lañ mujj moom lañ bëgg a dugal moom lañ bëgg a léegi incha allahu rabbi ñu waxaale rek benn benn teraanga boo xamante ne moom mii def na ko kon bu ñu ma invité seen TV mu ñëw di ko tàggu ci ni ko ñëwuma dem seen TV te doo ma ñaanal parce que bu ma demee te ñëw ma fii nga ñaana ma mën naa faa juum wala ma def fa erreur bu rëy mun ma incha allah rabbi doo fa juum doo fa def erreur dafa am sax lu ma ciy teg man ne ko loo ciy teg munu mbub ma ngay sol seen TV maa la koy xottil jox la ko mooy mbub yi moom moo ko def jox ma ko def ko addi Seydina Muhammad moo tax bi ñuy ñëw ma ànd ak sama soxna ma nga nële soxna Ndogoy Sall ak ñi may àndal di tàgg yonent bi euh, soxna euh, si indil ko cadeau boobu xamante ni faatu dindil mbuus mi dindil mbuus mi dindil mbuus mi dool fa faat mu jox ko lu من هوى كل المال قدره ما زال يا محمد حبيبي يا محمد كنت بيبي وصلي على الكمال النبي باي الجمال ينن من هوى كل المال قدره ما زل يا محمد يا حبيبي يا محمد كنت بيبي وخلن وجه بدر من jalla man anfasa yonen raqsuhu miskun wa amba armuhu dajila ya muhammad ya habibi ya muhammad kun tabibi billahi wal mabasim sukariya wa sanaya lumiya yonen هي جات فكري وبال يا محمد يا حبيبي يا محمد كنت بيبي بالله يا إمام الأنبياء يا ملاذ الأرقياء مصطفى يا سراج أولياء جمالي فيك تسال والله يا محمد يا حبيبي يا محمد كنت بيبي بالله يا إمام الأنبياء يا يا ملاذ أرقياء مصطفى يا سراج أوليائي دم لي فيك تسال يا محمد يا حبيبي يا محمد كنت بيبي وخلين بغ يونين من بغنا لا كبن يونين بغنا لا بغ يونين بغنا لا كبن يونين بغنا لا بالله بغ يونين بغنا لا بغ يونين بغنا yaa bëgg yoneen bëgg nanu la bañ yoneen bañ naa la bëgg yoneen bëgg naa la bañ yoneen bañ naa la muhammad ya rasulallahi lawlaahu ma kaana min jinnin wala basharin wala jinaanun wala naaru neex waale Muhammadu Lamin moo leen gën ku bëgg Seyduna Muhammad ya rasulallahi lahu jamaalun kamaalan laysa yusbihun samsun wala xamarun fi ufuqil aali mustawa yaanu gën seyduna muhammad cheikh daawuda sa soppe ba rasulallaahi génnul ci télé ya rasulallaahi feeñul ci journal turam dootul fay seyduna muhammad ku bëgg yoneen bëgg naa la noo mën a mel bañ yoneen bañ naa la loo mën am di abdallahi rasul صلى الله عليه وسلم سل على بدرجاء والمنقذات بادراك أحمد كنسي صالحا وسأبه وسلم محمد الأمين فهو نبي رحمتك كما باب كل نحمتك مصدر كل حكمتك ملجأ كل صائمك safiuna xayrul waraat su boobaa moom dong billi waayi xat buk siraat xat xaasoo rabbul wara un masana yi mukke mi ngay ku xeex ak yeneen doonaan doonaan وين داخدونا يكبر داو العزبة لا تذكر بيزا أبدا إن المناهل تهمي من مزايا وإلى المناهل تهمي بالمزايا مش شيخ وإمانا إلى تهمي من مزايا يا شيخ ريد ويردا والعذبة لا تتجر بيزا أبدا إن المناهل تهمي من مزايا إلى المناهل يهمي بالمزايا والله مناهل تهمي من مزايا فتاكم لازم لوازما وتكفيل تعليبها ضين ايمانا فيه فيه دنيا واخرى والى المعنى من كسب سيخنا تجاني شريف يا يا ايمانا الى من وكل سياخ حول أقيم فريدا من أدرات هي بإن رب لا وإلى المعنى إلى وهو المعنى إلى من المعصية وجاكوا أو أسباغا وبلو في آفاقي منأميرا لا أطبخنا صغر خفيه جدوى واسبع الوبل في آفاقي منأميرا لا أطبخنا صغر خفيه لغداك كل سيوقي قول حقيم فريدا قدرات الحي إن ربا غلاو إلى المعنى إلى وهو معنى إلى من جاء رب سيد الخادم مالك سيد waaw xalifa Babacar Si jël na ndam la waaw ana soppey Seex Daawda Juuf loxoy ca kaw fii ku fi ànd ak Seex Daawda Juuf loxoy ca kaw waaw ana soppey maam Alfa Combaan loxoy ca kaw kaw jadwa Seexu Tijaan na bey maamam wax leen sërif na bey maamam waaw ku fi ànd ak sëñ Babacar si loxoy Muhammadu Mansour Mansour baayu sëñ Bay Mansour def leen ni ñu màggal Alaaji Mansour araftul wara sarqal wa harban wara ara kamisli fatan Mansour fi saa'iril wara idaa sabaxal akwaanu yawman يوما إلى العلا يكون يكون إماما للوراء والوراء والوراء والوراء محمد منصور دفلني màggal alaaji Mansoor jugleen taxaw màggal alaaji Mansoor jugleen ñu màggal alaaji Mansoor araftul wara sharqan wa xarban wara ara kamisli fatan Mansoor fi saa'iril wara ida sabaxal akwaanu yawman ilal ula yaku يكون يكون إماما في الورى والورى والورى والورى محمد منصور جاكنا بايا والله ويا محمد منصور جاكنا بايا لمي نمقل على دي منصور جاكنا بايا كنتم لين نمقل محمد منصور وجاوف البايا جاكنا بايا نمقل محمد منصور جاكنا بايا والباياتي حبيبي وامالي امام المصودا ak bëgg Cheikhuna Tidiane Chérif ay ku sopp Cheikh defal ni waay حبيبي وامالي امام المصودا سسرين Cheikhuna Tidiane Chérif حبيبي وآمالي إمام مصودة شيخنا تجاني هوايل تران وأوائر أحمد مميد أخطى بفجول بوازل كوشوب شيخنا تجاني شريف حبيبي مميد أخطى بفجول بوازل سجورغ شيخنا تجاني شريف neena mumiidun aqtaabi fujuulin bawaadilin def leen ni ñu màggal Seexuna Tijaani Sharif ca góor ga wa in qiila ayna qatmahum xultu ahmadu wa kullu waliin tahta ahdaami sayxana maratibi usma fii lawaayka wasaadaat wax waasin li niq li kasaano na ñépp def ni ñu màggal borom tarixa bi ku bëgg cheikh bëgg naa laat noo mën a mel nga bañ cheikh bañ naa laat loo mën a yor doomu abdalaay rasoolo na tijaani ma ni ko sopp Seexuna Tijaan dafa li ñu màggal borom tarixa bi